yii may bëgg a wax waxtaan rekk laa ci jublu waxtaan woo xam ne dañuy fàttaliku ndax nu gën a mën a yokk sunu liggéey lépp itam dañu koy delloo rekk sëriñ bi suñu aatu ak bokki yu baax yi mu àndal li ñu def jëru sax wax ndax jëf ji jiit jiit ànd nag lépp waaye nag nu waxtaan rek ci sëriñ bi Euh, euh, yow Cheikh Mahamad Bachir ak euh, Cheikh Saaleh mën ngeen fi teewal mboolem ku ñuy tudd sëriñ bi yéen leen fi teewal ndax jataay bii day day loo xam ne ku ñuy tudd ci sëriñ bi rek waroon na ko teewe waaye na ginnaaw noo ngi fi ngeen yéen ñaar ñi ngeen wettali ma ci ak bokk yi ñu bokk sëriñ bi yéen a ngi fi kon mel na ne jataay bi ñëpp a ko bokk ñu tuddi sëñ sëñ Tuubaa nag ñoo ñoo ñoo si jiitu ak bokki bokki taalibe yii nga xam ne tey ñoo waral jataay bi mu ngi tàmb tàmbalee ci fàttaliku te lépp ci sëriñ bi lay dellu ngeen seere ne ngeen seere sama digganteek suñu bokki bi yi sama digganteeg ñoom sama digganteeg ñoom du man du ñoom lépp sëriñ bi ni ni ni man dox ànd gi ànd maa ngi ñoom déggoo dox ci biir ak ci bitti ba ci jataay bii loolu du man du ñoom sëriñ bi kon ni ma ko mën a tudde mën naa ko tuddee koo tudd ci ñaari tur ànd giima ma ñoom ba ci jataay bii fa mu tàmbale ba ci jataay bii ca ndorte la ba ci jataay bii loolu ci wàllu sunu borom dafa mel ne sunu borom da cee namm gën a feeñal mbirum loolu ci wàllu suñu sunu ak suñu borom bu dee suñu diggante sëriñ bi nag dafa mel ne sëriñ bi da cee jublu feeñal ci boppam waxtaan bi mën naa gàtt noonu rek la demee du man du yéen sëriñ bi rek la amul menn xel من خاطر سوى ديجنتي يين لا نعكس جثاي بي أول من نخل مكمسة خالد من يكنن نعم. من نخل مكمسة خالد من جثاي بي دنا أم سوى ديجنتي يين مدنك لأنه أم توفيق جوري رك نوم يبقى كسرين بي mel ne dañ cee doon dara tawfeex jure rekk la seen yoon nekku ci sun yoon nekku ci lépp sëriñ bi xool leen ko bu baax fanama fa tàmbaleeg ñoom te kenn wuuma fañ ko tàmbalee ñoom te kenn santu leen ko diir bu gàtt lu daje ma ñoom ànd ànd yu rafet bi nu ànd ba ci jotaay bii loolu loolu loolu yoonu xelum doomu aadama nekku ci loolu loolu nammeelu suñu borom la bu mu sëriñ bi loolu jublu sëriñ bi la bu mu nammal dong la demee dama koo gis-gisee nu leer ne noonu rekk la demee ma wëlbati ku gisaat ko nag eh, karaama jëf ju rëy ju baax mënu ko weer loolu ma ne na koo tuddee ne karaama la ñu bokk ci karaama yi sëriñ bi dégg na ngeen déglu seetlu li ma leen wax li ma wax bu baax baax noonu rek la demee ana li ci des lu ci des sant bu baax a baax a baax boo xam ne mënee su ko wax ci làmmiñ mënee su ko feeñal ci xol xajul ci xol ca googu cant la war a def la ca dolliku mooy yeesal suñu jaayante nun noonu mboolem ku bokk koo xam ne euh, sa sëñ Tuubaa mi ngi ci sa xol waxuma laa nag ka nga xam ne dafa dafa dafa jaayante dundam gépp mu jaay ko sëriñ bi te yàlla tax sant sant gu rëy ak yeesal sunu jaayante ba mu mees peq fas yéene koo wii di ko dund ba kenn ku ne ci noonu wàccub liggéey ñan wuutu ci ci lii nekk ca loola ba wàccub liggéey ñeneen wuutu nekk ca loola muy demee noona ba bis bañ ci lépp di ndemal sëriñ bi noonu rek la demee Cheikh Mahmoud Bachir dañu saale maa ngi leen di seeral kàddu yi xanaa loolu sax daa dara waru cee desati xanaa nag sa xanaa xanaa xanaa sama jantu bopp ak yéen loolu la ci des sama cantu bopp ak yéen nag ma ngi jël sama biiru cant sama diggante ak sëriñ bi loolu rek laa ci mën a dolli kon nag nan dem rek maa ngi labiré di soññe ci képp koo xam ne Sëñ Tuubaa ngi ci sa xol da nga yeesal jaayante war gannaaw lépp jëm ku jëme ci jëme bi te sëriñ bi moom mu sa jëm ci dara lu borom xanaa bi ko joxe ne yonent bi mu wéy ci ndigal ba ndigal la la ca boroomam bëgg mu mu defee ko ni sang bu baax ba mu defee mu liggéeyal ko ba lam ca bëgg mu defee ko ni loolu rek moo di dundam loolu nag mooy suñu ndono buñ ko xamee ak buñ ko xamut jublu ko suñ lépp suñu kem kàttan loolu bokkoon ci li li ñu gën a jig ndax dañuy defaral tey defaral nu ëllëg kon nanu góorgóorlu bu baax rek waaw nanu góorgóorlu bu baax rek sunu kem kàttan kenn ku ne ne wax bu xëyee noo gumu noyyi na ca na ca na ca boppam jëme ci yoon bi rek yoon wa rek loolu rek la waaw li ci des mënee su ko wax loolu laa ci mën a wax <laughs> tubaarkalla liggéey bi liggéey bi liggéey bi moom dara mënuñu ci mënuñu cee bett jëf ji rëy na lool jëf ji rëy na lool ndax benn taalibe bu ne bu dëggal bu ne loolay même téefam loolay yitteem kon liggéey bi moom fa tabarakallahu sëriñ bi borom liggéey bi moom moo gën a gis man mi ci teg sama bët nii borom liggéey bi moom moo gën a gis moom moo gën a xam fi mu jógee fa tabaarakallaahu réy na lool waaye eh, waxuma la waxuma la ku aju ci sëriñ bi waxuma la ku aju bi waaye jullit bu te te te te nga gëm dëkku ci moom lislaam dëkku ci moom ihsaan dëkku ci moom ku ci mën a doon rek noonu rek la demee li doon bëgg wax moo di rek eh, waxuma la ku aju ci bi waaye jullit bu mën a doon jëf diggam ak borom borom yombal na ko yombin woo xam ne mënee su ko miyaa misaal yàlla boo yéenee rek te defoo dara yi mu fay la dencal la ba fa nga ko gën a soxlaa boo jëfee mu tàmbalee fukk benn yiw mu tàmbalee fukki yow fukk yu lay delloo fukk yooyu ab tàmbali la mën nay dem ci sa ci sa jublu ci sa yitte mën nay dem ba doon ay junni moom benn boobu mën nay dem ba doon ay téeméer doon ay junni kooku mooy borom lépp te du jeexal dara jullit bu ne jëflanteeg bu ne. ñoom bu dee dëkk daara yooyu 4 millions lañ amoon joxe nañu 4 millions 200. kon alhamdulilah rabbil alamin jëf ji gisees na ko waaye sëriñ bi moom ko gën a gis mooy borom liggéey bi waaye moom itam kam doon liggéeyal moo ko gën a gis kooka itam. ka ko yebaloon moo ko gën a gis kon nan sant rek te soññuwu nan sant rek te soññuwu bu nu geesu bu nu taxaw yàlla yàlla mi dara tawul nag yàlla noonu yi ma wax yàlla noonu sunu borom muy jëf ak dindi gën noo gàtt ndoog tawféexi sëriñ bi ndax lii noo am lépp tawféexi sëriñ bi moo na ko may ci la ko jaarale kon yal na nu gën a gàtt nag tawfiq sëriñ bi ban mën a gën a jublu mën a gën a jéegu bañ a dëpp bañ a geesu bañ a taxaw yal na nu ko suñu defal moom mi defa ko dindi ci barkib sëriñ bi ci barkib sëriñ bi ci barkib sëriñ bi akub ngartanoo moom yal na nu sëriñ bi gàttanu boppam gàttandul nu gàttandoo nu gàttandul nu boppam ak ngërëmam te womatal nu boppam ba fa ko tax a jóg allahumma amin yàlla nañu ko